Sëriñ Balla lay way way la leen ma bule sama jigéen baal Sëriñ Balla lay way premier temps bi nga toogee ba tey juboo sunu jabar jaan xol seetu na paan buy bëgg du tàggoo Sëriñ Balla lay way ดูมันเกิดยืนดูดูมันแก้วบุรีแม่ชิเล่บุรีจีนดูจีนกันเลยบุรีแม่ดูมันเกิดเด็กวัวคุณอาคันดูคันกันเลยชีริบาลสมุทรเกิดบ้านบุรีแม่ชิเล่ไล่ไว้ยายอาสิบยายบาลานุฟาติมาไกวายนั่นมา sama waaj borom déglu baax bariwul sama xarit baax yàgg nga ma yàgg nga ma jàppale di ma defal lu baax muy fàtte te lu baaxoo sama waaj sa àlleeg sama waaj ba tey dara musul ñaaw ba tey ويلك نصيب فلقينا سيد بوليس أي سمواجه فوقنا ناري غوري تكنا مولين كمان ورالا كمان رجع دورو كولي أتلمجي Thank you. Buri kooku yaayam sumbulu sama waa ji kooku yaayam joogu bàcc lee si Omar Sakho yaayam day maa ko daan jëlee Buri bàcc lee kuy màcc naaru kuy takk naaru leen. ñoom yaa baal la jooy ah, moo koy xooloo balaa fo. ah pour yaay jasaatu ma. yaay jasaatu ma. waay waay waay. yaay nga xamee ba. jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel ah, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara ba tey ñoo fi nga xamante ni moo di xewu Balla Gaye bi waaye kii ñu toogal yaayam la xanaa ñu bàyyi ko mu nuyu ñi ñuy seetaan rek yaay booy ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel. leen di yaay tey sa doom mooy ngénte di Balla euh, yan kàddu nga ñu mën a jox ci sa diggante ak sa doom sa xarit sa soppe Balla Gaye fu mu toog ne suma waajur Balla Gaye fu mu toog ne suma famille Balla Gaye fu mu toog ne sumay rakk moo tax may liggéey sant yàlla suñu borom kontaan te moom kontaan te mboolum jullit ñëpp ñi fi nekk ñëpp ñu ñëw ñu ñëw te am yéene ñëw ñu ngi kontaan dina ziar sa diggante ak Balla Gaye ah, diggante waajur ak doom rek la kontaan ci moom rek waaw macha allah. mu jël ki nga xamante ni moo di doom bi tuddee ko Abdoul Aziz euh, ku ne xam na ni ñoom ñaar seen kóllëre kaddu yi bi nga ko déggee euh, mu tuddee doom bi Aziz yan kàddu nga mën a jëmale ci ñaari xarit yooyu noonu di ànd ku ne Balla Gaye ne Aziz Ndiaye ku ne Aziz Ndiaye ne Balla loolu nag pour ko déggee da kontaan la ma def. Mm-hmm. kontaan naa ci trop am ci mbégte. Mm-hmm. ndax seen diggante du tey démb la woon. Mm-hmm. la. waaye yombul nga am say waajur ñuy dund ñu gis la nga am koo xamante ni dafa xaritoog yow daf la comme rakk comme mag Balla Gaye ku ko wax ne Aziz Ndiaye yooyu xam nga dafa neex tamit nga leeralal ñu yenn kàddu rek ci digganteem ak Balla lan moo la gën a neex si ñoom ñaar ànd bi ñuy ànd. ah bu neex na bu nekk am ba baay mm-hmm. loolu moom neex na ànd bu neex bu ne ba baam ba na. waaw sa goro loo koy wax sumbulu muy sëy si kër gi indil la njaboot buri astafurlah buri waaw ah, maa ngi koy sant di ko gërëm ñoom ñaar ñoom sama goro yëpp jabari saa Thiès ñoom yëpp kontaan naa ci ñoom may nañ ma cër may nañ ma respect teg nañ ma sama place ma dal lu ma leen di wax naa di leen sant di leen gërëm waaw yan kàddu ngay dénk famille bi njaboot bi yëpp di leen sant di leen gërëm rek ñu yokk bi yëg ko ñu jàppante waaw adduna amul solo loolu rek la. jërëjëf yaa booy. merci kontaan na yaa la gën a kontaan jërëjëf. maan yee baa ngi nii yaay sunu sag yaay sunu tiitar c'était karanu indi roi des arènes ku ñu weranteel gañe ko barki doom boo Ndiaye mu jox ñuy ndam yow boo amee doom ci ñu tuddee ko Abdou Aziz Ala Ndiaye gàcce ak alama bu ribatil yaa baax Boury Bathily yaa gore Salimata Gaye jigéenu Wally Seck dama ni borom New York borom Italiano borom Paris waaye tey fekk na ko Boury Bathily Séeri Balla Gaye do journaliste yi arrière leen arrière leen nanu arrière buusal ñoom ñaajal ñaan ko ay taalibe lii journaliste yi arrière leen journaliste yi ay lii yàlla na ci yàlla wut ndox mu set. journaliste yi lii yàlla na ci yàlla wut ndox mu set. ana Médoune ana Médoune ana Médoune ana Médoune ak micro bi. Oustaz Modou Fall Oustaz Modou Fall doo ñëw jàppal ma temps fii. looloo neex. barki yonent bi. dama ni dama ni. salaamaaleykum espace bi salaamaaleykum madame Malem Malem dafa tàng dafa tàng quoi muy dem muy dem xajale fan bi ñu ñëw ñu ko xajale ma lay tudd fan bi ma lay tudd voilà ñu la jël voilà ñëw la sœur xala bu ñëw xala voilà ma sha Allah xala bu def bu dal ay ay magam lañu ay magam lañu bu baax ñu ko jàppale ñu ko may doole yu leen soutenir moo tax li mën ta ñàkk lii mën ta ñàkk bu jëkkee ci ñoom lay njëkk a jaar ay kilifaam lañu ñu mat kilifa man nañ ko mag man nañ ko bàyyi man nañ ko nijaay macha allah yàlla seen taxawaay yàgg xale bu baax la vraiment ay kanam la yaroo di sant yooyu ndaanaan vraiment lu baax la yor buri buri bàyyi leen ko mu dugg ci kër gi. bàyyi leen ko mu dugg si. bàyyi leen ko mu dugg si. bàyyi leen ko mu dugg si. espace espace espace espace. espace bu ñëw espace espace. Oh, espace bu ñëw. espace bu ñëw. espace espace bu ñëw espace. espace bu ñëw espace voilà. baa ngi nii yaay sunub sag yaay sunub tiitar si te karanu indi roi des arènes ku ñu weranteel gañe ko barki doom boo njaay mu jox ñuy ndam yow boo amee doom ci góor ñu tuddee ko Abdou Aziz Aly Ndiaye gàcce nga alama buri bàttili yaa baax buri bàttili yaa gore Salimata Gaye jigéenu Wally Seck dama ni New York borom Italiano borom Paris tey fekk yow buri bàttili Serigne Balla Gaye Diop journaliste yi arrière leen arrière leen nanu arrière bu sol ñëw ñaajal ñaan ko defoo fi génn da ngaa see xamal seexo ku ñam ko jéggal ko jàppale ko te yàlla tax buri battili buri battili buri battili gàcce ngaalaama journaliste yi lu ñu mel ni ay taalibe lii journaliste yi arrière leen journaliste yi ay lii yàlla na ci yàlla wet noonu seen ana Medoune ana Medoune ana Medoune ana Medoune ak micro bi Oustaz Modou Fall Oustaz Modou Fall doo ñëw jàppal ma temps fii. barki yonent bi dama ni salaamaaleykum espace bi salaamaaleykum ma ne ma ne ma. ma ne ma. dafa tàng dafa tàng quoi ma ne ma. muy dem muy dem xajala fan bi ñu ñëw ñu ko xajala ma lay tudd fan ma lay tudd wala ñu la télé wala ñëw le fer wala ma ñëw wala ñëw masha Allah xale bu def bu dara ay magam lañu ay magam lañu bu baax ñu koy jàppale ñu ko may doole yu leen soutenir moo tax li mën ta ñàkk lii mën ta ñàkk bu jikkee ci ñoom lay njëkk a jaar ay kilifaam lanu ñu mar kilifa man nañ ko mag man nañ ko bàyyi man nañ ko nijaay macha allah yàlla seen taxawaay yàgg. xale bu baax la vraiment. ay ci kanam la yoroo di mën a mën. di sant yooyu di ndaanaan vraiment. waaw lu baax la yor. alors.

espace bu ñëw espace espace. espace bu ñëw espace bu ñëw. espace espace bu ñëw espace. espace bu ñëw espace voilà.